Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. wa rahmatullahi taala wa barakatuh. góor noonu ñu ngi lay nuyu di nuyu chef de service yi fi nekk yépp di am mbégte mu rëy ak contentement bu ëpp bañ amoon daaw ndax daaw الشيخ ابن فعلا فيكون اذا كان خادم رسول الله جدول لكم مي بربي لون نك دال رسول سونو خيل رافتال نون سونو جور داخ كي ني ووتال بس بي داي خادم رسول واي داي داي شيخ ابن فعلا داي طالب بير نيب جيت بير سونو دي واجال بسام نك ñëw fi fekk leen fi day daal sunu xel rafetal tam suñu jox suñu ñëw bi nag day aada mooy daje bi daje fii di waxtaane lu jëm ci bisu màggal bi ak di leen fàttali warte fi nga xam ne yéen di leen a war ci bis bi ndax fu mboolooy daje sécurité mbooloo mu yéen la war fu mboolee daje seenum paj yéen la war moo tax nag su bi si ñëwee ñu ñëw fii di leen ko fàttali naka jekk daa ngeen ci taxaw naka jekk daa ngeen ci góorgóorlu def li ngeen ci man lépp muy Sonatel muy Senelec muy muy muy ñëpp rek ñëpp ci taxaw nañ ci war a taxaw borom bis bi nag jar na ko ndax koo ko lebal dafa am ak pay dafa futti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 Euh, médiatique ci bi nga xam ne mooy événement bi ci war takk der yi moom foo naa duñ ci àddu lu bari ndax foo naa ne loolu seen liggéey la muy sapeur pompier pour gendarmerie kenn ku nekk di nga jël say motuwaay ba incha allah ñu ñëw si jàmm màggal si jàmm dellu si jàmm ñu koy ñaan également suñu borom nañu loolu maintenant li ñu fi tënk yëpp nag jëm ci bés bi dina am benn réunion d'étape te loolu foo naa le préfet du département de Mbacké ànd ko service yi ak le sous de Ndam dinañ def suivi bi mais également évaluation manam nat yi nga xam moom lañ fi waxoon yan jéego lañ ci def su dé am nañu dess ñu mun koo téel a teel a yëgal kilifa moo ñu bëgg def ko une semaine avant avant magal bi su rafet defee am diir bo xamné dinañ mëna téel teel a ndax su c'est trop ci magal bi day indi jafé jafé motax ñu ñaan ñu def ko une semaine avant et inshallah japp nañ date 25 avril su rafet defee préfet bu mbacké dina def suivi bo téel ñoo jébbal maintenant rapport bi nga xam mo gis mo génn ci waxtaan bi ñaan rek suñu borom encore une fois yóbbuñ ci jàmm ba lépp loo xam ne également ñaan nañ ko ci suñu borom lawal ko ci ci réew mi